téléspectateurs yi safoo e euh, euh, euh, li nga xam ne moom mooy ñu def day national ñetti fan yoo xam ne nii dañuy tëral yu bëri suuf tey jii nag li nga gis li nga xam ne moom ñoo koy gisandoo ñun ñëpp mooy que. camion bi nga xam ni dafa saaraan dugg ci euh, benn chantier bi nga xam ne nii dafa nekkoon euh, ci ci yoon bi euh, laata nag nga xam ne nii moom mooy camion bi di saaraan fekk na ñi nga xam ne nii ñoo doon liggéey ci chantier boobu noonu jot nañoo woon arrêté liggéey seen liggéey maanaam nekkoon ci seen pause. ki nga xam ni nag moom moo di ki nga xam ne chauffeur bi jot naa jot naa am ay gaañu gaañu yu ndaw ndaw ci li nga xam ne ni moom lañ jot a jot ci ay xibaar di nag wax rek chauffeurs yi comme ni ñu xewee saa su nekk rek euh, ay responsable lañ euh, nekk nañ aussi ñi nga xam ne wax dëgg yàlla war nañu jël seen responsabilité bàyyi xel bu baax a baax baax li nga xam ne nii moom moo di volant bi parce que volant boo ci nekkee da nga war a correct volant boo ci nekkee da nga war a yu bëri na nga a bàyyi parce que mënoo nekk ci volant di dawal ba pare nekk ci yenn yi ba pare mën a contrôler li nga xam ne mooy volant bi bokk na ci li tax jéey yi souvent muy am waaye nag ñu ngi masa wu baax a baax a baax a baax a baax suñ mbokk yi nga xam ni dañu wàññeekoon fële ci Kaffrine di leen jaal di jaal seen mbokk di ko jaal suñu bopp di ko jaal képp koo xam ne sénégalais nga rawatina nga nekk julit ak wala nga nekk chrétien ak kum ci munti doon ñu ngi lay jaal ñi nga xam ne nii moom moo di euh, jéey ju mag jooju amoon yàlla na fi géej yàlla na fi géej yàlla na fi li ci am solo rek mooy sëfoor si nañu daw ndànk comme ni ko suñu maam waxee daw ndànk dal ndànk ñu ngi leen di jaajëfal mbokk téléspectateurs yi waaye lii ngeen di gis daal mu ngi xew fii ci Yoff euh, di jaajëfal ñi nga xam ne mooy téléspectateur u EDB TV yi nga xam dañu safoo saa su nekk di ñu seetaan di ñu bàyyi xel ci li nga xam ne mooy caay ay information di leen jox dig daji ba beneen yoon